bon Saer benn doom la ci Médina juddoo Médina yaroo Médina nekk nag ci quartier bi di def lu tuddee développement local comme ni ko tubaab di wax ci développement local boobu nag yàlla mi ngi ma ciy dimbali ma nekk ci depuis pratiquement dix ans ci fukki yooyu nag dañ naan ci liir si neexee nday jëmoo téye ci baggee maa nekk si suñu ay jigéen mën naa ne association bi quatre vingt pour cent bi ay jigéen la association bi ñu ko créé mi ngi ko tuddee jàppalante jàppalante boobu la tubaab di wax solidarité solidarité boobu tey moo indi association boobu di dox ba am programme bu riche bu muy teg chaque année mu nekk programme boo xam ne annuel la donc mu ànd si nag ak suñu vice présidente madame Ka ne Niang dëkk si Rydhi 7 angle 6 nekk tamit doomu Médina malgré que Mbour la jógee sey si fi mais sey si na fi voilà ànd si tamit ak suñu secretaire général de pratiquement dix ans mu tudd Ndeye Seynabou Mbengue dëkk tamit à la Médina nekk doomu Médina à la rue treize angle huit bon ak membre yëpp mu nekk nag quatre-vingt-dix pour cent des femmes ñu nekk ci développement local de pratiquement année yooyu yëpp ma wax li ci njëkk lu ñuy takk dañuy nekk ci dëkk ne dëkk bi kat dañ ci war di participer comme social la ñuy dox ñu ne kat nañu am initiative di def don de sang chaque année. don de sang boobu ñuy def chaque année pour mu nekk suñu participation symbolique si Sénégal parce que gis nañ ne banque de sang yi chaque année Sénégal dañu am pénurie ñu ne vraiment initiative bu ñu jël bu ñu ko bàyyee te na nekk programme boo xam ne day nekk programme buy continuer ñu ànd ci nag ay partenaires yu am doole macha allah ñu ñuy jàppale ku mel ni Orange ñu ñuy jàppale di pratiquement moom tamit ci année yooyu yëpp ñuy def don de sang jaaree ci loxo Josiane Montero. nekk euh, agence commerciale u Sonatel Médina parce que chef d'agence établissement Médina Baye la woon moo ñu appuyé ci loolu yàlla mi ngi ciy dimbali nag ñuy participer ci réew mi ci loolu. ak moom mooy mooy moo ñu motiver sax parce que soo nekkee ci quartier da nga war jëriñ quartier bi en quelque sorte war nga xool ne Médina dafa am fu mu xar kanam bi mu daan wane démb suñu parent yi ñun ñu nekk fi nag juddoo fi war nañu ñëw jël suñu tànk teg foofu ak suñuy bët. soo xoolee ma joxale ay tuuti exemple rek ñu mel ni comme ku mel ni tey El Hadj Doudou Rose soo mënoo tudd Medina di ko ci génne yàlla na ko yàlla yërëm nga jëlaat ku mel ni ay vieux seng ci culture nga ñëw ci côté politique dégg fi tamit lu mel ni ay euh, Seydou Gueye comme exemple Pa Abdoulaye Seck Cheikh Ahmed Tidiane Ba Maymouna Ndoye Seck ba ci sport nga ñëw ci Cheikh Seck président Jaraaf ak Youssou Diall nga xam ne kon Médina toujours am na ay xar kanam bi ñu leen di xoolee réew bi yëpp Sénégal loolu moo ñu moo ñuy gën a motiver. loolu mënul ñàkk ci réew parce que même réew yi ñu ëpp doole sax da nga koy gis waaw ñun sax bon xëy na yàlla dimbali ñu ñu naan kilifa diine kilifa aada yaa ñu fi du ñu sensibiliser chaque fois ndimbal boobu nag moo tax xale yi si bari dañu am kilifa tamit su ñu nekkee ci tolof tolof yu demee noonu wala emat nar am ci dëkk bi ñu woo leen tegaat leen ci raay yi ñu delluwaat gannaaw. parce que sànq bi may lim maa ngi leen wax ne dañuy roy ci Youssou Ndour buñ ko fàttee Youssou Ndour tey mënoo ne Médina te sa xel du dem ci moom l'enfant chéri de la Médina mu nekk royukaay xale yi day am parce que sa Médina dafa nekk buntu étranger yi soo xoolee tey mënoo toog koñ gisoo fa étranger bu fa dëkk léegi nag jikko yi day xaw a changé tuuti moo tax nag war nañ toog di waxtaan si télé yu mel nii comme tele bii mooy safoo mu tuddee ko Médina TV pour la la chaîne des médinoises war nañ tamit góorgóorlu di ñu dimbali si sensibilisation yi demee noonu moo tax euh, ñu ngi woowaat xale yi si loolu di leen sensibiliser que doom Médina dafa am lu muy incarné démb ba tey kon waruñu ko yàq nañ ko sàmm. dama ci sawar tontu lool am ci bégte sax laay wax parce que man nee naa xëy na soo xoolee samay xarit sax jigéen a ci ëpp parce que ñun dañu am benn affaire boo xam ne dafa naroon di réer ci ñun ñu koy gis si banlieue banlieue bi toujours dañ doon wax jigéenu banlieue yi ñoo ëpp a jom jigéenu Médina alors que loolu amul xëy na jigéenu Médina lii moom manqué woon ci ñoom ut góor bu mel ni man ñu koy tuddee ci olof sax góoru mbootaay muy ànd ak ñoom di leen orienté di leen fexe di leen dajale mais il faut nga am jot nag ba pare il faut tamit nga mën a dékku am na jigéen rek caprice mais yàlla dimbali ma ma am jigéen ñu am mature ay jigéen ñu am responsabilité jigéen ñu am personalité yàlla dénk ma leen nag ñu ànda wax dëgg neex yàlla ci fukki at yi ma ànd ak ñoom ñu ngi def développement local ensemble benn bu ci njëkk initiative bu njëkk am dañ dem. lonko mutuelle bu mel ni PAMECAS nekk fii Médina parce que dañ ne jumtukaayu Médina yi waruñu ko fi bàyyi di dem seeti feneen PAMECAS bu ñu leen seetee waxtaan ak ñoom ñu jàppale ñu ak jigéen ñi jëlal ñu pre defal ñu cinquante million xam nga cinquante millions ku ko jox euh, benn euh, association mooy que association am na xar kanam bu mu taxawee ñu jàppale ñu si ñu ñu ñuy leb di fay jigéen ñi si di góorgóorlu bi ñu demee nag ba xam ne tamit loolu bénéfice boobu xëj na ci ñun suñu biir. ñu am initiative ne nañ def calebasse calebasse boobu suñ ko mënee jël defal ko suñu bopp suñuy benn intérêt suñuy bénéfice ñu lekkaat ko ñun moo ñu gënal moo tax tey ñu dem ci egsi ba trois caisses di waaj nag ut quatre ba cinq caisses caisse bu nekk trente personnes ñoo ci nekk ça fait au total quatre-vingt-dix personnes te kees yi dañ koy tijji tabaski balaa tabaski di ñëwaat juste un mois avant tabaski ñu toj ko euh, bon li ci gën a tuuti ñaar fukki junni la moo gën a tuuti parce que tous les waaw tous les jeudis dañuy daje fii joxe mille mille deux cent ba cinq mille deux cent kees bi loolu la mais actuellement ak Covid 19 bi ñu ñaan yàlla jëleel ñu ko fi mbas bi nu mu gën a gaawee parce que namante nañu sax suñu biir bu toogaat soo gisee ni ñu xam ne ñu ngi respecté gestes barrières yi parce que eh, eh, loi lu mu teg da nga koo respecté moo tax réunion tuñu dañuy ñëw ku natt dem tey émission bi sax moo ñu xaw a téye tuuti ñu am retard toog nii. mais tous les jeudis dañuy joxe 1200 ba 5200 chaque jeudi amul tëb voilà mais loolu ñu ngi koy continuer ci kaw ñu respecté nag geste barrière yi di laal gel alcoolique ak port masque yi ñu def gis nga ko ñoom ñëpp ñu ngi ak seen toog nekk nag jigéen ñu ñaawul macha allah ñu baax ma leen di gërëm nag di profité ci loolu di leen ñaanal yàlla mënul ñàkk suñu borom rek mooy sab sumba dara bu mu jeex te du ci am problème waaw lépp looy gis même suñu président de la République day am ay difficulté ci ay ay ay activités yenn mënul ñàkk gis nga pame kaas boobu ma wax noonu am naa ci ay cas yoo xam ne dafa doy waar yo yoo xam ne man maay jee mu nekk perte man ma koy fayaat am naa ci ay femmes yoo xam ne parce que jikko yi bokkul nit di nga bokk ak nit ndey ak baay sax bokkoo leen ay jikko voilà di ñàkk nag am ñoo xam ne lépp nañu daw mais yàlla dimbali ñu ñun suñu ay xalaat am na boo xam ne ñun ñoo cotiser sax dem fayeelu kokkul moom laa la njëkk a wax ma bokk ak nit ndey ak baay doo la niroo mu nu mënuñu tolloo mm-hmm. ñun ñoo jël responsabilité fay ko parce que ñun ñoo engagé wu ba signé garantie bi ñooñu demee daw am nañ am na tam ko ci génn adduna comme ñun ay jullit lañ tam dañuy rafetal lépp ñu jël en charge ay gëli prem waaw pour jeune Médina yi dama bëgg ñu bàyyi yaacaaral bi ak yaafus bi tuuti doomu Médina moom laa la wax gaynde nga waroo nekk Youssou Ndour wax na ko bañ leen bu leen nangu xale yi Médine dafa nangu daan doole xam na ne la koy expliqué mësul des gannaaw Youssou Ndour soo xoolee dafa am lu ñu sànni ñun dañ ko war di jëfee te gis nga soo xoolee si meilleur chanteur yi si africain Afrique yëpp Youssou Ndour moom ngay compter waale mënoo ko lim teew li boole woo ci Youssou Ndour kon royukaay la ci ñun xale yi Medina nañ jël loolu ci Youssou Ndour def ko idole xalaat ne kii fu mu jugee ak fu mu egsi tey ñun jéem a mel ni moom waaw loolu daal laay sensibiliser xale yi ne leen nag drogue banditisme lépp luy vol nañ ko teg fële xam ne ñun vraiment personnalité dignité lañ ñu war di xoolee exemple rek Boury Mbaye bi ngeen di gis nii xale bu am jom la gis naa ko fu mu commencé ak tey jii dañuy ñaan yàlla laf cat yokkal xéewal beeg yëpp loolu moom maa ko si jàmbaasaale di ko gërëm nag di ko ñaanal yàlla ak groupe bi yëpp ngeen équipe bi mu àndal xam ne c'est la Médina qui gagne santaat bu baax suñuy waajur waaw sama yaay ja nekk àlaxir ak sama papa yàlla xaare leen àjjana nañ fa gisante ci àjjana firdawsi malaaka yërmande teeru leen ak mbooloo mu jullit ñu fa fekk di ñaan yàlla nag mu yokk ñu lafal cat toujours parce que nee nañ cat dafa sew te lépp lu yàqu moo koy yàq yàlla bàyyi ma ak sama jigéen ñi ma àndal ñu nekk ay femme ay princesse ay ren pour moi ñaan yàlla ba lépp lu ñuy yootu ci man ci association jàppalante bi mu kawe suñu njort di talal yàlla suñu loxo di ñaan yàlla aaral ñu suñu Médina sàmmal ñu suñu xale yu góor yi muy jeunesse bi jàppale leen parce que jeunesse mooy avenir réew yàlla na leen yàlla jàppale yéen tam ma di ñaanal yàlla di am contenté ak pour yéen donc donc waa Médina yëpp maa ngi leen di woo muy jeunesse muy euh, troisième age di ñëpp maa ngi leen di woo pour que ñu jàppale suñu chaine mi nga xam ne day doog a jóg mu sut ci chaîne yi mooy la Médina euh, chaine télévision médinoise nañ ci jóg jàppale ko dem abonné ji parce que suñu chaîne la te alul alo alul golo ca lex ba la ñu wax ñun nag ñoo ko moom ñoo ko mën a sàmmal suñu bopp waaw maa ngi woo ñëpp kilifa aada kilifa diine yi ak euh, képp ku autorité nekk politicien nekk fii ci biir Médina muy sportif yëpp acteur culturel yeeg yëpp ñu ngi leen di woo vraiment ñu dem abonné ci bi xam ne suñu yëf la